ëpp solo ci secteur clé yooyu li nga xamante ne yëpp ci lay reposé wu mooy état de droit bi nërmeelu woon te Sénégal yëpp dund nañ ko ñu fexe ba dekkil ko système judiciaire bi aussi ñu def ci ay réformes yu profonde parce que ñaar yi ñooy articulation yoo xamante ne lépp lu développé réew ci kaw ñaar yooyu lay tegu nañu roy ci réew yi nga xamante ne seen jariñ la seen peuple Arabie Saoudite 1932 la njëkk a produire pétrole ci jamono roi Abdel Aziz bi nga xam ne fondé mais dañu collaborer ak américain yi créer société bu ñuy tuddé Aramco Arabie Saoudite am ci ay parts 50 Américain, yi nga xamante ne ñooy plateforme technique bi am ci 50 moy dox ba donc contrat yi nga xamante dañ ko jaayoon de ko ci régime bi fi nekkoon nañu wut jëm fex ay pexe pour récu récupérer lu ñu ci mën a récupérer li nga xamante ne bay wéy na mbuus mën ñu ko récupérer 21 blocs yi ñuy wax ni ba léegi jaayaguñ ko joxuñu ko kenn yooyu bu ñu koy négocier ñu jox ko ay nit yoo yoo xamante ne ba ñuy siñee contrat yi nga xam ne Sénégal da ciy am ñële am ci gis nga négociation yooyu réew yi koy indi seen plateforme technique sa mën nañ am lu ëpp mën nañ am 60 pour cent Sénégal am 40 cent mais ci kaw ñu def li ñuy tuddee transfert de technologie